no tey vidéo yi bëri na mais bii tey vidéo yi bëri na mais bii foo ma wax ko quoi erreur daf ma jàpp non bii foo ma wax ko vidéo yi bëri na mais ngeen baal ma dama toog di xalaat sànq réunion waa benn bokk yaakaar ndax dañoo woote réunion d'urgence pour xool ndax affaire bi na leen a bett noo xam nga gars yi bi ñuy politique nii président Diomaye président Sonko politique bi ñuy politique nii politique haut niveau la du politique championnat africain ligue des champions ñoom noonu la ñuy parce que li gën a grave seen seen politique mooy amul fuite ñoom seeni i mbir amul fuite du am fuite de da ngay jékki-jékki rek ñu génnee dara génnee dara takk ngay ngay jaay di mbëkk miiri du am fuite bokk la gouvernement yi fi nekkoon nga xam te ne seen dafa am ñuy senn ñii ay professionnel lañ amul luy senn jékki-jékki rek président affaire bi génn dem ñu ni leen jeudi woo nañ leen pour ñu ngeen dissoudre ñaari ngeen dissoudre au conseil ak beneen bi HCT ngeen ngeen dissoudre ko ñu wax waa assemblée nationale jeudi ngeen dissoudre ko léegi ñoom ñu woote réunion d'urgence pour xool seen biir naka la ñuy lijjantee loolu mais ndaw réunion bu neex ndax xam naa ni waa au conseil parce que ñoom ñoo fa ne di noos xaalis askan wi bu waa au conseil toog ak waa HCT toog daal di waa assemblée bañ leen bañ leen bu leen ko dissoudre bañ leen bu leen bu leen ñu dissoudre quoi bañ leen waa assemblée nationale leen mais yeen ñun bu ñu leen dissoudre ñun bu ñu leen dissoudre kon ñun lañ nar a dissoudre le 13 parce que ñoom ñaari semaine moo leen fi dese maam bu weer bi dee nguur président may ne leen quinze jours donc ñoom bu ñu bañee ne duñ dissoudre ñi duñ dissoudre au conseil ak beneen bi bu ñu bañee duñ ko dissoudre donc ñoom la 13 ñu dissoudre leen. léegi nag problème mu réunion boobu moo nar a neex yow man su ma nangul dissoudre la d'ici quinze jours ñu dissoudre ma donc li gën a wóor mooy li ma président bëgg ma def ko pour xëy na man ma espérer am jàmm. rey réunion boobu noonu billahi est-ce que duñu am ay ay yoo xam dinañ ko filmer parce que ragal naa ñu xeex seen biir ragal naa ñu xeex ci seen biir. mbiri yàlla dëgg la parce que ndeysaan bi ñu ñun avant yegsi ci nguur gi ñun ñoo doon xeex affaire u temps ñu naan président Ousmane Sonko bu déposé candidature am bu defee appel fii temps bii la am sinon du am temps pour déposer candidature am ndax appel bi balaa moo ñëw bokk ndeysaan ñu calculer ci temps ba xam dinañ mën a déposer wala duñ mën a déposer léegi ñoom waa Bennoo ñoo nekk di calculer ci temps. bu ngeen bu maanaam ñun waa au conseil bu ngeen ñu dissoudre ñun bu ñu leen dissoudre kon ñun la ñuy dissoudre kon bàyyi ñu dissoudre leen. ñeen di leen noonu bu leen ñu dissoudre noonu ñu ngi leen bàyyee calcul mathématique ñun ni ñu doon mathématique ñoom ñu ngi leen bàyyee mathématique boo xam ni te ñun lépp ci règle ci loi lañ ko teg lépp ci règle ci loi ñoom ñoo nar a dissoudre ñële ñële ni leen bu leen ñu dissoudre. ñun bu ngeen bu ñu leen dissoudre ko ñun la ñuy ñun la ñuy. kooku non kooku liggéeyul kooku moom. daa waroon moom moom bi ñuy jàpp gars yi lañ ko waroon rappelé mu ñibbi si moom it ndax liggéeyu ñàkk liggéeyu ma tax ay nit mën jóge Sénégal ñëw ba Libye usurpé signature premier ministre bi autorité libyenne yi recevoir la ñaar it di ko ci jàngat. Mm-hmm. beneen bi lu mel nii day am ci nguur yu bees. nguur yu bees yu door a installé wu. rouage diplomatique yu huilé wu. genre fee yu mel ni dayam nguuru Macky Sall. am na ku fi dóoroon ministre de l' na leen bras droit wu Jean-Yves Le Drian la yaakaar naa xaw ma beneen waa ji moo nekkoon ministre de la défence wala des affaires étrangères wala de l' intérieur ci jamono jooju. encaissé leen euro yu milliers d' yu dul jeex. yooyu dayam boobu ñoo ngi ñu ngi doon door a waaw yooyu day benn tubaab nii encaissé leen comme genre émissaire u Jean-Yves Le Drian la encaissé leen d'ailleurs duguloon Sénégal rek dëkk yu bëri ci sous-région dafa leen ko defoon donc yooyu day am ci nguur gi door a agsi daf lay won na la mbir yu bëri sécuriser guñ ko ba tey maanaam note officielle yee not confidentielle yi plutôt ak signature du premier ministre. ils sont au pouvoir mais ils n'ont la totalité du pouvoir loolu am na loolu feeñ na ci affaire bi beneen bi. libi lañ la wax déggoo ñu ne la France déggoo ñu ne la Arabie Saoudite pays fragile bu semi état tamit nekk. du état bu normal libi bu doon état bu normal yi. note boobu bu amee audience ambassadeur u Sénégal wala consul u Sénégal da ko waroon fekkee. dangay ngay jàng di fii am na ay manquement waaye fële moom daa amul dara sax moom moom fay moom libi ndax yow boo waree recevoir ay officiel wu réew ambassadeur u réew moom wala consul wala représentant wala ku mu mënta doonu réew moom waroon na ko fekkee mu lay wan mooy libi tamit état bu fragile la état la boo xam ne tamit turu état fa ne waaye li fa ne du état libi ñaari ñaari gouvernement fa gouvernement Tebrouk ak gouvernement Benghazi hmm. benn bi mooy mooy parlement bi beneen bi mooy bi Khalifa Haftar dirigé mooy ñaari libi yi affronté donc xam nga loolu tam du réew donc liñ ciy jàngal loolu beneen bi nag moom acte jubadi la rek mooy comme li nga am am ay nit yoo xam ni dañ ne dañuy tedd te duñ sonn mooy li bàyyi soo ko nag naan na xam diggante asamaan ak suuf di tedd te doo liggéey ci njubadi rek la voilà donc genre tedd te doo liggéey yooyu jubadi yi rek nga ciy teg après j'espère que dinañ leen sanctionner lourdement ba lii dana nekk effet dissuasif ba ñeneen ak ñeneen duñ ko ñëwee di def. parce que yemuñu rek si premier waaw moom kenn pour demander. Mhm. moom kenn ñaaru fee dana bëri jamono ji dana bëri ku la wax na la may buntu Ousmane Sonko premier ministre boo bëggee toog ak moom dangay toog moom problème yi nga am marché bi nga gañe woon te jaarul yoon exécuté woo ko nguur gi dañuy teg jub jubal jubbanti. risque yi bëri na ci yow mais mosal ma ma fexe nga gisante ak Ousmane Sonko yooyu yëpp da nga gis ku la ko jaay te amul. France léegi Pastef am na ñu doon encaissé ay euh, leen audience ak président ak. waaw moom kañ loolu day am moom loolu kañ bu la kenn nax bu la kenn nax na la Pastef mucc ci bépp nguur gu ak au pouvoir parce que au sein de Pastef ñëpp jubuñ. loolu amul fenn au sein de Pastef euh, dëdduwuñu xaalis comme premier ministre ak président ak yenn ñu bëri ci seeni leader donc lépp matut ni nga xamee ni yonent sallallahu alayhi wa sallam ñi mu àndanoon ñëpp wala ñi dugg ci lislaam ñëpp duñu ay référence wala ñëpp duñu ay ndaanaan wala ñëpp duñu ay aji jub mbooloo boo gis euh, kuy raas jéem gën a ci am donc loolu ala kulli ñooñu genre fee yooyu nag mooy li ñuy wax rek boo yëngalee garab bi feu yu bon yi ñooy wadd feu yu bon yi ñooy wadd moo ñooy def acte yooyu voilà ñooy def acte yooyu wan la ne la ñoom duñu militant gëmuñu jub jubal jubanti bi dañ ñëwoon rek ngir waaj yi fii ngir jekku ko mm-hmm. et que teel nañu wane seen bopp pour dem mm-hmm. alors mbokk bu fekkee yéen ñi ñuy a xamante ni tàmmoon ko ñu def ko mardi. maa ngi nuyu euh, Citizen Africa bind na ma ñetti yoon. na ma cheikh bi nuyu ma. Citizen Africa nuyu naa la nag. di la euh, bëggee. ñu koy ziare bu baax di nuyu également euh, Alioune Badara Badara Badara moom c'est un fidèle internaute de Sunugal 24 Yankoba Dansokho également ñu ngi koy nuyu bu baax a baax Khadija Seck ñu ngi lay nuyu di nuyu Mouhamadou Dumpate Wat. ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu képp koo xamante ni yaa ngi ci live bu fekkee dañ la ñuy door a rejoindre euh, de le live de mais ñetti question xam ngeen principe bu émission bi dinañu ko jël euh, si ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk di commenter bu ngeen amee seen question ngeen posé ko ñu tànn si ñetti question ko Cheikh Ousmane ngir ñu mën a waxtaanee lu mel noonu léegi ñu dugg nag ci nga xamante ni. waxi politique la laataa ñu ñëw ci les dossiers exclusifs yi nga xamante ni moom la ñu war a traité ak Cheikh Ousmane te mu am.